xëy na ni ko sëñ Mahamadan Ndiaye waxe li sëriñ bi santaane woon ci nun nu tënk ko fi mel na ne loolu waxtu wi dootu nu ko mën a may ndax bis bi bisu Cheikh Ibra Faala ñu ne woon kon dañ koy def ay tomb danañ def benn tomb boo xam ne moom la ñuy ubbee waxtaan wi ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina waaye def ab tomb ci dellu gi sëriñ Tuubaa jóge njaareem ñibbi Tuubaa te Cheikh Moustapha Mbacké taawam bu tedd ba tàmbali di ko màggal nga xay moo doon guddi biig ndëgën biig noo nga Tuubaa na ko sëriñ Tuubaa waaje ci njaareem ba na mu demee Tuubaa ci ndigalal Cheikh Moustapha Karim loolu itam di ab tomb su ko defee xew-xew boobu ci men 1927 buñ ci waxee tuuti lu ñu leeral ci ne sëriñ bi waajale boppam bu ñibbi Tuuba su ko defee Cheikh mu Al Karim yenu yen ba nag ñu wax tuuti ci Cheikh Moustapha Al Karim boole ko ak turandoom wa di Cheikh Modou Moustapha moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina te doomam toogoon fii léegi ak njabootam nekk fi ba tey ñi ngi fi ndax sëñ Saali woo ngi nii toog tomb yooyu lañ ne woon benn bu ci nekk dana am luñ ci yëkkati loolu nag day xaw a jël tuuti ab diggante loo ko tënk-tënk tënk ci Cheikh Ibra tënk ci waajtaayu Serigne Touba door dugg ci sëñ Modou Moussa Mbacké ak sëñ Modou Moussa Fall kenn ku nekk ñu am luñ ca wax ca seenuk ànd gañ doon ànd di liggéey ci digaleel sëriñ bi ak loolu maam Cheikh Ibra Fall loolu la sëriñ bi santoon ba loolu la ñu waajaloon naroon ko fee waxtaane waaye mel na ne jataay bi mayatunu loolu kon ndigal indi na nañu danañ yëkkati ay kàddu ci ndigal rek te daal di yem foofu delloowaat rajo bi ba yeneeni jamono waaye liñ fi nar koon a wax lu am njariñ lay doon loolu àddina ak lool alaaxira waaye rawatina gone yi nga xam ne jamono jii ñu toll ñu ngi tollu ci gëstu bëgg xam-xam bu wér bu wóor te nag loolu mooy li am solo te ab jataay nag li ci gën saa yoo jógee ca jataay ba man faa jëlee njariñ lu wér loo xam ne lii danga ko mën a yóbbu yóbbaale ko jariñoo ko yaakaar naa loolu mooy li gën ci ab jataay nangu naa ci sëriñ Mor Ba sëñ Mor Ba taalib yëpp sëñ Mayib Ñang la <coughs> Baay Mayib Ñang njaareem la nekk waaye yàlla dogal na bi muy dem ci Cheikh Ibra di jaayante ji ak moom fii la jóge ci ndakaaru waaye tefas gii nu jàkkaar lool la topp di dox ak tànkam topp tefes gi ba àgg ndar jébbal fa boppam maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiina kooku mooy sëriñ Mayib Ñang taalibeem nag bu ñuy wax sëñ Moor Ba jeexoon takk ci sëñ Mayib moo ma wax mbis ne ma damaa toog fi sëñ Aliou Fall Mbawoor sëñ Aliou di waxtaan ci Cheikh Ibrahima ba mu yàgg mu ne daa am mbis boo xam ne man Aliou Fall Mbawoor maa dem ci Cheikh Ibra ci këram gi ci njaareem fekk ko fa ne ko man de Fall damaa bëggoon a wuti addiya damaa bëggoon wuti àddiya su ma ci amee ndigal ne Cheikh ne ma demal nee na mu daldi dem Saalum nawetaani nee na ma soppi sama wutuur waa kay Fall nee ma dem nawetaani dem Saalum soppi sama tur ak sama sant tudd ne neen sant ne neen di fa nawetaan nee may nawetaan ba nawet jeex ma jaay sama gerte not ko tereet bi taxaw ma dem ca marché ba di liggéeyaan di liggéeyaan di liggéeyaan ba tereet jeex takk nee ma boole la ma bayoon ak li ma liggéey lépp mu doonum xaalis ma def ko fi barab daal di jógaat wut si njaareem <coughs> ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine nee na bi ma agsee ba yëglu ba am ndigalal jàll si ma agsi New York Cheikh Ibra ma dangaa dem ba ñëw ma ne ko waawe di Fall man nag Fall dama bëggoon su fekkee ne yaa ma jur ma jaay njureel gi jënd ko taalibe rek jaay la jébbal la sama bopp àddina ak àllaaxira di sa taalibe su fekkee juróoma it ma jébbal la sama bopp àddina ak àllaaxira di sa taalibe nee na Seex Ibra Faal ne ko ah eh maag sëñ Bamba jurunu kenn kenn jurunu maag sëñ Bamba jurunu kenn kenn jurunu sëñ Bamba moo ma jëkk a def jëmmi nit di ma liggéeyloo mbooloo mëlee ika ma ma sëñ Bamba fekk may seen njiit muy séddoo woon suufi juróom-ñaar dana am ñoo xam ne duñ am fepp wuñ mën a yóbbu sëñ Bamba moo ma jëkk a def jëmmi nit yi ma liggéeyloo loolu sëñ Ali Fall Mbawoor moo ko wax maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiina Cheikh Ibrahima Fall ku ñuy wax sëñ Muttu fa Touré Mbombe sëñ Muttu fa Touré Mbombe doomam sëñ Bamba yoroon na ko xaadim rasulullahi sallallahu alayhi mooy soxna Penda Touré te mu gën a siiw ci soxna Penda Cissé sëñ Mutu fa Mbombe Touré sëriñ Touba waxoon na sëñ Abdou Karim Touré ne ko xutbaani gi jaar na ci moom jaar na ci sa maam waaye dafa yàggul sëñ Mor Mutu fa moomee la sëñ Touba waxoon ne moom laa fekk dara dara jaarul digganteem ak yàlla boroomam waaye ne ba ma séenee dafa jóg gat ma dëbb ma am sol moom nag moo amoon fukki doom yu góor ak ñeenti doom yu jigéen sëñ Tuubaa ne ñëpp wàlli yu ñeñ kenn rek moo ca dul wàlli yu te saalihiina la moo caatloo woon moor benn bitiw Touré mu jur alaaji Seex Touré ngin ngi new ak sëñ Nasiir Touré waaye Cheikh Ibra Fall waxoon na sëñ Abdou Karim Touré ne ko maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon na sëñ Abdou Karim Touré ne ko ba fa bi Cheikh Ibra jógee di wër sëñ Bamba te dem ba kër sañ Mor Muttu fa Mbamba Touré Cheikh Ibra nekko won ko ab liggéey nekko sama liggéey bii sa kër maam la ma dale ne ko booba damay julli waaye su ma kàbbaree mbooleem ruu i malaaka yëpp ruuxi law lawliyaa yi ruuxi wàll yi yëpp dañ koy jóor ci sama kanam sëñ Cheikh Ibrahima ne booba su ma ne allahu akbar ruuxi mboolem kuy wàll yu seeni ruu da suñ borom da koy jël ci sama kanam ma jàkkaaroog ruuxi wàll yi yëpp kooku mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moom moomu moo taawloo sëñ Modou Makhtar mu jur sëñ Abdou Karim Touré kon doomam ja Sëriñ Tuubaa yoroon muy soxna Penda Touré teñ di ko wax soxna Penda Cissé soo demee ci xasid ak sëñ Omar Fall ma nga naan wan sub muhammadan li Penda Cissé wa umu kulsuumin min ar-raisi amoon na ci ñaari leer am na ko ci kër Sëriñ Tuubaa xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yaakaari jaam ñi ñu xamay ne julli gii nga xam ne moom nañ nar a julli suba bis ko sëñ tubaa julli woon moo dil siwaat bisam gaawu ko sëñ tubaa julli woon jullik suba bi waaye jullik gii sëñ tubaa julli ci biir bee géej gi bisum gaawu woon di ñaari fan ci weer rabi huseeni mooy weer rakk ji gàmmo ci la ko julli woon waaye jullik tisbaar nag la woon ndax tisbaar ko jëkk fekk nag ci biir géej gi jullik tisbaar la woon soxna Seneba Gay ak soxna Aram Gay ak soxna Jaane Caane Gay seen baay Masamba Wari Ngom Seneba Gay moo jur aale Seneba ak mbërgu Seneba ak njuga Seneba Njaay ak Njaay Seneba ak Binta Seneba aale Seneba moo yale loo mu jur Aminata yàlla mu jur Saaxewer Fatma mu jur Xari Maam mu jur Aminata Lo mu jur Cheikh Moussa Karim mu jëkk a wutu xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaakaari jaam ni mbërgu Seneba mi bokk ak moom nday ak baay mu jur Balla mbërgu mu jur Daam Buri Sàmb mu jur Soxna Sali Lo mu jur Soxna Anta Sali mu jur Maam Mor Anta Sali way jur Sayxul Xaadim xaadim rasulullahi sallallahu alayhi yaakaari jaam ni njuga Seneba ma topp ci ñoom moo jox Maxtaar njuga mu jur ma Sàmba Soxna Jaajañ mu jur ma dun Hawa mu jur sëñ daam Abdourahmane Lo mi jàngal njabootu Serigne Touba xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaam ñi Njaay sene ba ma topp ci ñoom jur aram loo mu jur ma Diop mu jur faa wadd wele mu jur alaaji Malick si borom Tiwaawoon foofu ba alaaji Malick bokk na fekk Serigne Touba menn maam Binde si jur Kura Ture mu jur Faama Njeng mu jur Kura Njaay mu jur maram ngàcc mu jur Lawbe Ture mu jur maam Thierno Ibra Faty soxna Faty Issa Diop mu jur maam Thierno Faty borom Daaru Muuti Aram Gay jur Kumba Jaañ mu jur maam Njaay mu jur soxna Balla mu jur soxna Seynabu Njaay mu jur maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina Cheikh Ibrahima bokkateeg ñoom ñoo ñëpp menn maam ci saayir ak ci baatin Serigne Ndiaye Fatma jaara Serigne Mamor Ndiaye Serigne Daaru Assane Ndiaye te soxna Njaay mi jigéen ab sëñ Daaru Asan Njaay moo jur Ahmadou Roqaya Fall mu jur maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina kon soo demee ci téere Serigne Bassirou Mbakke di Minanul Baaxil Xaddiim da nga fekk Serigne Bassirou jël xalimaam di bind ma ngay ne fa wallaahi laa yatawallaw ilaa wa kaadoo di yàqati loona alayhi saraa la ada sara allasi baqiya bihi balalun min almaai wudu wala yasaru ahadun ala nuqamatin aw xusaalati inain aw sawbin ila wa yaxaddu saalika min asaabi iyaamihi sëriñ Basiiru Mbàkke nee na giñ na ci yàlla ne diirab sëriñ bi ak nekkam jamonoom ne yent yi ku ko mas am ci mag ñi mooy bis bi gën texe ci sa bisi jamono mooy sëriñ bi doon jàppe nga am ca njàpp yin ma wala ndab lu ñu defoon aw ñam taaj ko ci këram Sëriñ Tuubaa mu def ca loxoom ñu raxas ndab la nga am ca raxasit ma wala sëriñ bi xaaxtandiku wax ba yàgg mu xaaxtandiku tafli ko nga for xaaxtandiku wax wala mbubbam Sëriñ Tuubaa mu ñu sol mu soloon ñu fóot ko nga am ca póotin ma sëñ bi si ne ne giñ naa ne yent yi diiram li sëñ bi ne jamono ku ko mas am ci mag ñi bis boobu mooy bis bi gën a texe ci sa bisi jamono te say xunaa